beaucoup jërëjëf internet des Prod Media gannaaw ba ñu leen nuyoo comme niñ ko baaxoo di defee saa su ne rek seen émission kaay toog euh, dooratina ngeen di àndandoog la Lyon qui règne sur toutes les plateformes digitales timaa lay doon gannaaw ziar ak màggal jëmale ci suñu kilifa diine yi euh, ñu ngi seet ñu nekk ci hôpitaux yi ak yi di leen ñaanal suñu borom teggi leen nattu yi ñu delluwaat seen activité ay ci tey naka ñu ngi ñëw seet si ki nga xamante ni ah bu la neexee nga ne ko Ndiaye Talla Bakar Code soo ko waxee rek xol bi seet Ndiaye Talla nuyu naa la Cheikh nuyu naa la. maa soxna Mati di la bëggee di nuyu équipe bi nga àndal. Mhm. di nuyu àdduna di nuyu rawatina réew mi ñu dëkk di Sénégal. Mhm. du nuyu papa yaay doom mag nijaay maam tante doom xarit wareeva ñëpp rek <laughs> maa di siyaar di leen jox seen wàccuwaay. Mhm. aja merci beaucoup bu ngeen gisee nag suñu jataay bi nee naa la toog fii naan Cheikh Anta yow la kan loolu bokk na si yàpp àdduna mm. ndax réew mi yëpp xam nañ kan mooy Cheikh Anta tollootuñu foofu ak yow. fi ñu toll mooy Cheikh ak projet yi Cheikh ak liggéeyu boppam Cheikh fu mu ci toll. waaw ginnaaw bi ma nuyoo àdduna maa ngi sant suñu borom bu wér a wér ndax euh, lépp mooma ma ndax moo mën a kàttanal. Euh, di nuyu suma groupe Ramdan ñu gars yi di leen bëggee di nuyu Sabar Melo ndax dama am euh, groupe boo xam ne. fii ñeenti at ci ginnaaw ñu ngi koy liggéey donc muy sabar mélodie di ay xale yu ndaw yoo xamante ni yàlla daf ma boole ñoom ma nekk di liggéey ñoom def nañ album. Mm-hmm. Euh, yàggul dara bi mu génnee international euh, ñu ngi ci waaj ñu des percussionnistes le 3 ñu ngi war a jouer. Mm-hmm. et donc ñu ngi ci waar wi comme mooy loolu. Mm-hmm. waaw d' mu ngi noonu groupe bi. Euh, depuis quatre ans mi ngi soso mais euh, tour bi groupe bi war a am lan moo ko téye ba nit ñi xamaguñ ko bu baax. waaw mais xam nga musique musique bi sabar melo di di def dafa xaw a ute ak musique biñ tàmm di dégg sabar melo sabar yi ñu ngi créer musique bi ñuy def ci jaas ci reggae ci naaja ci rock ci mbalax dafa mixé musique du monde laa ko mën a tuddee. Mm-hmm. donc xëy na am na ñu ko découvrir nag. mais bareegul lool lool lool lool mais di olof di wax naan boo nekkee ci yoon bi di daw. boo gaa boo xàddiwulee di nga dajeek li ngay seet ñu ngi ci. effectivement mais Cheikh Anta souvent nit yi dañuy dañuy kaas ci wàllum sabar bi comme ni nga ko waxee ndax ñu bëri doon nañ fi wax naan tëggum sabar dafa yàqu ndax xale yi léegi sabar yi ñuy teg yëpp fooru jëmbe lañu koy fooree euh, est-ce que tamit gisoo ni euh, ñàkk xam bi ko ñàkk nit ñi ñàkk xam mooy li ngeen wàll feneen booleek seen bos bu ñu jëloon suñu bos est-ce que duñu cons suñu bos ba pare wëlbatiku sexal ñeneen suñu yëf no mais xam nga tëggum sabar bi moom bokkul ak sabar bi ñaar yu différent la tëggum sabar bi moom loolu leneen la lu nuy jàng la gis ko parce que a ko fi bàyyi te gaa yi nga koy def ñu ko war a defee nag vraiment mais en tant que sabar bi ak cosaanam am na ay différent ndax ñu ngi jël ñenn ñi ñu ngi jël euh, di jël sabar di ko foor comme ñuy foree jëmbe donc loolu mambaay wu ko fi mhm. donc sabar cosaanam mooy peeg mees mhm. peeg mees loolu la loolay cosaanam. Mhm. mais na comme àdduna dafa dafa gudd tànk te. Mhm. affaire day développé moment yu nekk. le monde évolue xam nga voilà quoi la demee. Mhm. man daal noonu laa ko jàngatee. d' accord euh, c' est c' est super nag li nga xamante ne moom mooy datu le ngeen am ci slogan lu ngeen ko tuddee mooy nuit des. percussionnistes nuit des percussionnistes. pourquoi ah. nuit des percussionnistes. ah guddi tëggkat sabar yi la. parce que bi mooy troisième édition bi. Euh, te nag nuyu des percussionnistes defe naa ni ci sabar melo rek nga koy dégg. Mhm. tëggkat yi gars dañuy fàtte du leen lim lu bari. Mhm. te musique Sénégal tuddul piano tuddul guitare. Mhm. tuddul baas mbalax la tudd te mbalax ci sabar la am. lépp loo xamante ni bii pour man sabar war na ko war na mën a jéggi frontière yi quoi comme ni ko suñu baay bu baax ba daan defee du Ndiaye Coumba Rose. Mhm. xam nga amee léegi nag àdduna dafa gën a développé ndax façon xeetu musique yi xewwaat yi amaat xëy na ñoom seen temps fekku leen ci. Mhm. ñun boog man Cheikh Anta. Mhm. ak li nga xamante ni ñoom yaakaar di ànd ak man di liggéey. donc li ñuy def weesuwul jéem a jël sabar yi tóoj ko yëkkati ko ca kaw. te ñun ay percussionniste lañ te on est fier ndax loolu la suñu borom nattoo muy suñu métier lépp lu mu laaj nag danañ ko def. lépp lu mu laaj ci xam-xam danañ ko gëstu. lu ñu mënee euh, pourquoi pas sax sabar mënul tëgg diine de gala pour man. mën na nekk. mën na nekk mais ban facette. donc yooyu ay recherche la comprendre nga donc du coup. tëggaat sabar yeeku. loolu dana neex de sabar dina de gala. Ndiaye. lu mën a ne la te boo ñëwee le 3 <laughs> di ci xam dara. waa hmm. ah, di nga dégg nga gis beneen beneen façon xeetu tëgginu sabar. bu bu wutee ak bi nga tàmm dégg. waaw hmm. ah, donc mi ngi noonu tëggat yee ko moom. Hmm. askan wi ko moom. ak fecckat yi ak fecckat yi ak képp ku bëgg lu neex. Mhm. mais des fois aussi euh, Cheikh Anta dafay mel ni yenn woykat yi dañuy fàtte tëggkatu sabar comme ni nga ko waxee. Mhm. donte askan bi ñu ngi leen di fàtte tuuti. mais woykat yi ci seen biir aussi. Euh, souvent da ngeen di woote ay soirée te duñ ci gis ñu bari ñu ñëw pour soutenir leen dooleel leen. waaw mais xam nga nit ku nekk ni nga tollu ngay defee ni nga tollu ngay waxee ni nga tollu ngay jëfee. àdduna dafa tollu ci ñaar ku la wekk nga wekk ko ku la yëg nga yëg ko ku la yëgul bul ko yëg ah man de loolu lay dunde ameen baax na lool euh, nit koo xam ne du la lu benn yoon baax na bu la woowee nga wuy si ko mhm. parce li muy li muy lay li muy lay soxla li nga koy soxla mooy ëpp yow li mu lay soxla. donc loo xam ne ay annuel lay doon. at ba mhm. at lay nekk waree ba xam nga genre affaire yu mel noonu. Mhm. yooyu moom jar naa bàyyi xel daal. Mhm. mais est-ce que aussi euh, waa waa waa Sabar Mélodie ñu ngi prôné di tëgg soirée comme ni ko nit yi di defee parce que souvent aussi nit ñi dañuy soxla soirée sénégalaise yi. waaw dem fecc ceebu jën fecc baara mbay. day am day continuer day continuer incha allah rabi parce que dañu def album bi làqatu di liggéey. di liggéey ci album bi di liggéey defe naa album bi mu génneeg léegi def na 4 mois. Mhm. ba léegi sabar melo deful dara. tu vois di liggéey parce que tamit ñun du ñu du ñu ñëw nag <laughs> dem album war ko jouer mu mel ni kooku ma xam. Mm. waaw kooku ma xam rek. kooku rek. kooku kan. <clears throat> waaw cencikatu bi yaa am gën a xam. waaw <laughs> am na am koo àndal koo xam ne. Mm-hmm. ñag bi asiba waaw day nëbb li mu doon mais garaaw am mm-hmm. problème yooyu yëpp garaawul. Mm-hmm. mais dañu war a jouer album bi. dañu war a jouer soirée comme si que album bi lañ teg. mu leer set ku ko déglu xam ne ah fii kat ndekete mbir a ngi fi. sabaru live daal ci gàttal mbir a fi lépp a ngi ci lépp day am nag. Mm. waaw bul bul bul jaaxle de. Mm. bul ñëw mën nga ñëw fekk gars yi di se i sa yooyu bu mu la jaaxal de. waaye. <laughs> bu ci dara ah moom ñeme leen ko joué. mën nga ñëw fekk gars yi reprendre benn bopp morceau Bob Marley di ko joué ak sabar yi bu mu la jaaxal. Hmm. waaw te it mën nanoo mbalax nag parce que fii la ñu dëkk nag. ak hmm. noo dégg. waaw loolu dafa leer. ay ayca d'accord euh, loolu yëpp ci euh, sabar mélodie ñoom ñoo koy war a préparer date bi di la trois mars incha allah euh, ñu ci woon ak Sénégal yëpp nag bëgg nañ ñu ñëw fecc ci sabar man moom déjà man des Desprot ñun ñoo ngi ci kanam. ñun moom ku ñu fa dëgg nee ñu massa parce que premier édition bi rëccoon nañu deuxième bi ñun ak yow ñoo ko àndoon. waaw incha allah troisième bi kenn duñu fa jiito. waaw da ngeen ma jigéen diwul sax nag. waaw.